ci xalifa euh, Cheikh Ahmadou Bamba bu nekk taxawaay gi mu am ci jumaa jooja waxtaan wi nag euh, ñu am mbégte lool dalal ci ku bokk ci kër gi euh, di itam suñu kilifa bu baax Serigne Bara Mbacké ñu ngi lay nuyu di la ziar am lool dalal la ci Demb ak Tay aoudu sant yàlla bu te teddaayam ga ak màggaayam ga ni mu yelle ci jëmmam ji te as njaamam lott ci lool di julli tey sëlmal ci sayduna muhammad alayhi salaatu wassalaam di yeesal suñu paspas ak suñu jaayante ci sëriñ tubaa xaadimu rasul du ñaanal seex muhammadul muntaqa sunu boroom yàggal ko ci lool te wéral ko di ñaan sunu boroom mottalil ko mboolem ay naalam nay naal di yeggale tey naal ak di yeggale waat na sax ci naal ak di sottal ñun ñu koy seere di ziyaari mbooleem kilifa diine yëpp xalifa généraux yëpp fu ñu mën a nekk mbooleem auditeur auditrice yi safoo saxoo di topp rajo Rewmi FM 97 point 5 ak fu ñu ko mën a toppee a àdduna soxna Fatou Thiam maa ngi lay nuyu bu baax a baax baax di rafetlu bu baax a baax jotaay bi nga xam ne xam nga ko yéene seq ak ñun incha allah mhm. jërëjëf Mbacke ñu ngi am mbégte itam lool sekk waxtaan ak yow ni ma ko waxee sànq euh, jumaa tubaa jooja euh, liggéey bi daanaka euh, yàgg na ndax xalifa bu ñëw bëgg a mottali yéeneem ci taaral bërëb boobale ci gën kaa ñoŋal gën kaa yaatal ba taalibe yi bu nu ñëwee yëg ne yegsi nañu ci bërëbu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ñu tàmbalee nag ci Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacke mi nga xam mm. ne moo nekkoon xalif 1927 ba 1945 mu njëkk mm. doon xalifa Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mm. lanay doon taxawaayam gu ñu mën a natt ci jumaa ju mag jooju nekk ci Touba. macha allah soxna Fatou Thiam daanaka mën nga ko lu am solo xam nga Serigne Touba ci liggéey bi nga xam ne moom la liggéeyal boroomam dafa ci am ñaari juma yoo xamante ni ca liggéey boobu la ko ko la ko ko yàlla fayee. benn bi mooy jumaay njaareem wax nga ko léegi ci 1917 euh, Cheikh Issa Diène yoroon liggéey ba bi mu noppee ci la doon sabab lu jumaam jee nga xam ne moo war a nekk fa Touba le 30 avril 1926 ci la ko tubaab bi may autorisation ci li sëñ Mbacke Bousso bind. sëñ Mbacke Bousso doomi bàjjeni sëñ Touba la sëñ Touba ko yar sëñ Touba ko jàngal lu bëree bëri moom wax na ko ne 1926 sëñ Touba ci ak nekkam. tubaab bi may na ko autorisation pour mu tabax jumaa foofu ci Touba ba mu joxe woon ci ndigal yàlla dogal nag euh, tàmbali gi fekk ko fi bi yàlla dogalee mu wàccu liggéey 1927 moom si Cheikh Ahmad Bamba 1929 euh, Cheikh Mouhamadul Moustapha fa yéenee sabab lu waat la nga xam ne moom la sëñ Touba bëggoon nga xam ne moom Cheikh Mouhamadul Moustapha bi mu koy sabab lu lim njëkk a def sax mooy fexe ba am bëgg euh, fexe ba defar lu plan bi mu defarloo plan am tubaab bu mu ci waxtaanam doon ci bëgg a jëflante ak moom tubaab boobe defoon ci jikkoy ndaween sànq xaalis ba defal daw njibbi France Cheikh Mouhamadou Moussa taxul mu tekki ki tekki tànkam fa ko tegoon waaye encore defarluwaat beneen plan boo xamante ni moom la yónni woon suñ ma soron ànd ak nag ci moment bu jafe jamono boo xam ne dëkk dëkk réew bi doy na waar lool adduna bépp sax laay wax ndax booba murid yi ñu ngi door a ñàkk Cheikh Ahmad Bamba Cheikh Mouhamadul Moustapha mi ngi door a installé wu. 1928 mhm. Cheikh Mouhamadul Fadal ànd ak maam Cheikh Anta ak mbo ñenn ci bokki bokk yi mu àndaloon ak taalibe yi mhm. demoon ajali Cheikh Ahmad Bamba màkk bay door a ñibbisi. 1929 Cheikh Mouhamadul Moustapha fas yéene songu jumaa ji waaye bi koy songu bi defaree plan ba noppi li gënoon a jafe mooy tubaab bi bi fi nekkoon te jamono jooja façon gàllankoor bu ne tegal nañ ko ko ngir jumaa ji bañ am waaye ak dëgëram ak fitam aku njàbbaareem ak gëm ne lu ko Sëñ Tuubaa dénk dana am moo taxoon mu jàll kon doonte joxe woon nañu autorisation dañu caa xawoon laxas jaan laxas nañ ci jaan laxas nañ ci ay jaan yu bëree baree bëri ndax bokk na ci rek Cheikh Amadou Moussa bi mu joxe bi mu présenté plan bi wane ne kat maanaam di demande autorisation maanaam bi fekk boobu mayoon nañ leen autorisation ba noppi waaye bi ñu waree commencé war liggéey bi waaw day ñaanal autorisation wane ne damaa bëgg liggéey bi ci dab sàngam présenté plan bi nangam moo mooy lim war a euh, coûter ci ay ci ab lim maanaam nangam ci xaalis la war a jël nii la war a mel matériel sàngam a ko war a liggéey bi mu leen présenté plan yi tubaab bi dañ ko teel a xamal ne ko moom fa nga dëkk muy Touba moom amul aéroport avion mënu faa wàcc benn ñaareel ba it mooy amutub gaar furaay mënu faa dem amul tëli bu ñuul kon matériel bi nga xam ne te matériel bi war a liggéey sa jumaa ji moom oto mënu koo sëf faaw sa otoraay rek ko mën a sëf waaye Cheikh Mouhamadou Moussa ci volonté am ci la engagé ne léegi kon bàyyi leen man ma defar raay diggante Njaaréem ba Touba nga xam ne moment boobu sax moment boobu sax nga xam ne maanaam euh, ki nga xam ne moo fi nekkoon xalifa Cheikh Ibrahima Fall bi ñu waxee Cheikh Mouhamadou Moussa loolu ak jaaxle xawoon naa am ñu ne ah raay Hmm. benn nit buy engagé raay ci wàllu financement waxuñu sax wàllu financement waaye wàllu doole. ca jamono jooja. ca jamono ca jamono booba. waaye ki nga xam ne moo fi nekkoon xalifa Cheikh Cheikh Ibrahima Fall. Euh, booba sax fi la fekk Cheikh Ibrahima Fall ci 1929 Cheikh Ibrahima Fall moo ne ko tubaab bi condition bu mu la digal nangul fépp fu muri fépp maanaam diggante Njaaréem ba Touba fépp fu ñu wàqee danaa fa tëral wéen <laughs> loolu Cheikh Ibrahima Fall hmm. waxoon. ne ko diggante Touba ba Njaarim fépp fu murid yi wàqi danaa fa tëral weñ lu wax nangul mhm. la bi accord nga xam ne Cheikh Ibrahima Fall mën naa ne raay bi lépp ci liñ ci gas Baye Fall yi ko gas mhm. waaye Cheikh Mouhamadou Moussa yoonu murid bépp la ko àndaloon ci ci la tàmbali raay bi nekk ci nekk ci nekk ci ba juin 1931 biñ demee ba 1931 ba raay bi noppi nag tubaab bi ne ko nag bisimilah mën ngaa commencé la 1930 euh, le 19 février 1932 ci la sëñ ma sorong sorong indi plan bi dem dem France jëli waa maanaam dikk pour yeesalaat euh, confirmer plan bi nga xamante ni moom lañ fas yéene liggéey la 4 mars 1932 ci la ñu tàmbali ci lañ teg première pierre jumaa ji maanaam premier euh, ci lañ teg xeer wi Cheikh Mouhamadou Cheikh Mouhamadou Moustapha tàmbali ko nekk ci jumaa ji nga xam ne 1932 ci la nekk lan la yaakaaroon lan la ko doon liggéeyee moom Cheikh Mouhamadou Moustapha. Mm-hmm. yorul ay usine yorul ñu nekk diaspora ñu koy ñu koy financé yorul yorul yorul yorul yorul waaye lenn rek la yaakaar mooy aw ñaqu boppam ak ñaqi taalibe yi Cheikh Mouhamadou Moustapha moom ci ci li mu nekkoon mooy Sëñ Tuubaa bi mu fiy nekk daf koo joxoon ndigal mu sanc dëkk bu tudd Taïf jox ndigal Cheikh Mouhamadou Fadal noonu mboolem mag ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon kenn ku ci nekk Cheikh Ahmadou Bamba dafa am la joxoon ndigal nga sanc fab dëkk di bay di yut sëriñ bi kenn ku ci nekk nag da ngaa wutal jumaa ji toorub àllarba tool boo xamante ni su nawet su nawet dikkee ñu bay ko def ko ba mel ni mu war a mel hmm. su nawet di jeexee ñu jaay ko yut ko Cheikh Mouhamadou Moussa mu def ci jumaa ji fu mu mu yemale ko foofa ba déwénatee jàmm hmm. <laughs> nga xam ne moom Cheikh Mouhamadou Moussa effort yooyu ci la tàmbali jumaa ji euh, ci 1932 ba yàlla dogal ñu dem ba egg ci 1941 euh, deuxième guerre mondiale daal di am nga xamante ni réew mi hmm. jaxasoo woon na lool lépp taga témbe mhm. ci la Cheikh Mouhamadou Moustapha jumaa ji nag muy yàlla dogal biñ demee ba le 13 juillet 1945 mhm. moom Cheikh Mouhamadou Moustapha ci la wàccu liggéey fekk ji Cheikh Ahmad Bamba xaadimu rasul mhm. waaye li gënoon a jafe ci liggéey bi li ci gënoon a metti li nga xam ne maanaam mooy li li li nga xam ne bu bu amutoon jumaa ji tey du am Cheikh Mouhamadou Moustapha moom jànkonte na ak loolu ndax façon galgal bu ne tubaab bi teg na ko ko waaye ak jamono booba fi réew mi toll réew mi ni mu naqaree waaye ak effort yi mu def yëpp fexe ba fondement jumaa ji mhm. ba yëkkati ko ba nga xamante ni fu waay toll da nga seen miiru jumaa hmm. ci jamono bu jafe waaye ci ay stratégies nga xamante ni ci moment bi ñuy euh, bi ñuy lal raay bi sax tubaab bi egg naa ak moom ci ne ko maanaam limu murid yi nga xam ne ñoo koy liggéey da koo jox ab lim ne ko nangami maanaam tant de personnes ñoo ciy xëy. bu mu weesu lii. waaw tant de personnes ñoo ciy xëy maanaam lim bi maanaam. Hmm, waaw jàppoon na ne murid yi amuñu mbooloo mu toll noonu. Hmm. ci misaal mu ne ko sept jour deux mille personne ñooy liggéey te deux mille personnes bu ñu xëyee tey bu subaa duñ xëyaat ñeneen yeneen deux mille ñooy xëyaat te ku ci wàcc dañ koy fay tey yàpp lay yàpp lay dindi. Hmm. nga xam ne bi mu waxee loolu. Cheikh Mouhamadou Moustapha ne ko nangu naa biñ génnee Cheikh Massamba sëñ Massamba rek ci sëñ Tuubaa la mhm. moo ne ko man mën naa yëkkati som jox la mhm. saa yiñ wàccee nga jox ko murid yi mhm. murid yi di jaayante nañu sëñ Tuubaa bu subaa ñu joxaat leen ko xaalis bay tourné yow nga xam ne xaalis bi day tourné murid bu ñu ko jox ci ngoon gi ci kanamu tubaab bi boo xëyee dajale sëñ Massamba jox ko ko mu dajalewaat ko bu jiitaat ko sëñ Moustapha bu ngoonee moom lañ leen fayee waat leen ko nga xam ne stratégie bii lañ teg. Mhm. fexe ba lal ba raay bi. Mhm. waaye fexe ba matériel bi mën a dikk ñu mën a tàmbali liggéeyu jumaa ji ci mhm. jamono bu jafee jafe jafe macha allah. nga xam ne sëñ Modou Moussa 1932 1929 kon la tàmbali raay bi. 32 31 la la pare. 1932 la 4 mars la tam la tàmbali la teg xeeru jumaa ji. Euh, xeeru jumaa ji euh, tàmbali fondement bi. ba fondement bi egg ba mu tàmbalee yëkkati mm. yàlla dogal cent 1941 euh, deuxième guerre mondiale am mu pose liggéey bi yàlla dogal avant mu koy tàmbaliwaat nag ci 1945 mm. suñu borom dogal mu daal di wàccu liggéey moom Cheikh Mouhamadou Moustapha. Mm. ci kon ci tënk rek moom moo taxawal jumaa ji la ca gën a métti ni nga ko waxee moo ko def mu di fondement fondement ba nag. fondé wu ni ñu koy waxee itam ci ay jafe-jafe ak i métital eh, yu tara taratar bàyyeekoo ci tubaab bi waaye eh, tànki kanam la mbir mi am ndax eh, Cheikh Mouhamadou Fadilou Mbacké itam ba mu ñëwee 1945 yàlla teg ko fi ba 1968 yaakaar naa ne liggéey bi dafa jëm kanam macha allah waaw moom Cheikh Mouhamadou Fadal bi yàlla dogalee Cheikh Mouhamadou Moustapha bi si 1945 46 waaye Cheikh Mouhamadou Fadal moom it yàlla jimbale ko mu doon koo xam ni ci ak ñaw waaye ci ab xam-xam waaye xam façon stratégie ban la mën a teg ba muri yi booloo bennoo di diglu genn kàddu suñ laajee ñu joxe su laajee alal ñu joxe ko su laajee temps ñu joxe ko su laajee doole ñaq ñu joxe ko Cheikh Mouhamadou Fadel moom foofu la tàmbali ndax bi mu dikkee 45 dikk rek songu jumaa ji daa dikk 1945 fekk booba màggal Touba daan nañ ko def waaye ban façon lañ ko daan defee mooy Cheikh Mouhamadou Moussa daan def bu jotee. mu ne mbooleem fu taalibe sëñ Tuubaa nekk sëñ bi nee woon na bu bis bi jotee fu waaye nekk na ko fasantale boroomam ndax Màggal Tuubaa sëñ bee ko tàmbali boppam ci 1921. Mhm. bi Cheikh Mouhamadou Moussa bi mu dikkee na ko sëñ bi daan defee moom noonu la wéyalee nga xam ne mille saa yi saa yi ñu excité ci mille neuf cent vingt mm, mm, mm, euh, buñ saa yi ñu excité ci Màggal Tuubaa Cheikh mhm. day joxe ndigal ne fu ab taalibe nekk na ko fa defee. sëñ moo Cheikh Mouhamadou Fadal nag moom bi mu dikkee ci 45. Hmm. ca Cissé boobu la ko bàyyi nga xam ne bi fi Cheikh Mouhamadou Moussa jugee 45. sëñ Cheikh Gaynde Fatma màggal Touba gi moom daf ko doon woote ci bis bi fi sëñ bi bàyyi ko. Hmm. muy euh, ñaar fukki fan muy ñaar fukki fan yi tam xarit. Hmm. maanaam fukki fan ak juróom ci aw tam xarit. bi yàlla dogalee Cheikh Mouhamadou Cheikh Mouhamadou Fadal ànd moom ci 45 46 47. biñ demee ba 48 nag. ci la wax ne murid ci la def déclaration daal ni murid daal ni bis booba may naa ko Cheikh Mbacke sama doom mu di ci fàttalik Cheikh Mamadou Moustapha mm. waaye nag nga xam ne moom la Sëñ Tuubaa tànnoon daan ko màggalal boppam mm. muy 18 safar damaa bëgg taalu bi yëpp bu jotatee ñu fekk si ma fii mm. ci ba ci ci wetu borom baraag bi di ko defalee ci dëkkam ni mu ko bëggee ci dëkkam bi mu ko bëggee muy màggal Tuubaa mm-hmm. ci la murid di commencé ñëw bi ñu ñëwee car bi mu ko tàmbalee 48 ca déwén sa 49 na ci la door a lancé liggéey jumaa ji. Hmm. nga xam ne woote na màggal gi ba murid yi ñëw. waaw premier dajale leen waaw bi ñu leen dajalee bañ dikk doon benn dànk nag deuxième màggal Tuubaa ga muy hmm. ci la ne leen ah, jumaa ji kat nag borom da ko fii dénkaane woon. Hmm. te Cheikh Mouhamadou Moustapha sama mag ju baax ja def na ca la yàlla dogal. ndegam nag suñu borom dogal na nee na tegg ci loxo bi coleen rek. incha allahu taala. daa ne nag daa woo murid yi moom it nag fa Cheikh Mouhamadul Fa Moustapha tegoon tànk bi moom mhm. foofu la teg. Mhm. Cheikh Cheikh Mouhamadou Fadal maanaam ni mu liggéeyee jumaa ji dafa yéemi. Mhm. soxna si. jumaa ji bi mu paree li ci li ci dem ci xaalis. un million trois cent quarante mille dollars la. Hmm? un million trois cent quarante mille dollars. boo ko xoolee ci franc CFA daanaka ay sept cent trente deux million lay doon. ca jamono booba. ca jamono boobu sept cent sept cent mm-hmm. jamono boobu nga xam ne moom bii rek booy wut booy wër jumaa ju mat cent millions fi nekk nii nii nii. Mm-hmm. ay benn benn ngay bañ. ca jamono booba nag laa wax. moom tey ay milliards la waaw mm-hmm. la. moom mu def ci jumaa un million trois cent quarante mille dollars. nga xam ne sept cent trente deux millions lay tolloon ci franc CFA. boo ko dee boo ko dee xayma. waaye li ci yéeme mooy soxna si malgré malgré sept cent millions la ko liggéeyee. Sëñ Fall amul compte banque. ab dërëm mosu cee dem banque. bu hmm? déedéet moom kay bu nawet jotee ñu dem ci tool yi bayal si bayal Sëñ Tuubaa tool bu àllarba soo ñoree ñu jaay lañ cee jëlee ñu jël def ci jumaa ji suñ soxlaa xeer dem ndox gas toj doj ya dikk indi ci jumaa ji yenu indi ci jumaa ji mag ñi nga xam ne suñ Fallu daf koo séddale woon mag ñi nga xamante ni ñoo fi nekkoon ca jamono booba te yow ay mbooloo aju ci Sëñ Tuubaa. Hmm. maanaam par ay ay lañ ko daan def bis bii Baay Faal yi ay mhm. bis bii diwa ay bis bii diwa ay bis bii diwa ay ku aye yaag sa njaboot yéene dem yéene ji carrière ñii aye togg ak ñi aye garde kenn ku ci nekk la la Cheikh Mamadou Fadel sosoon ci jumaa nga xam ne ba pare daan tobbi ay sas nag daan tobbi ay sas maanaam su année bi jeexee mhm. buñ dajee bu dajee mbooloo mi def assemblée générale daal ne ah mbooloo kër kër gu ne sas lañ la nangam boo ko mënee am soo ko mënee am indi soo ko ma soo ma am na ci ñoo xam ne dañ naan def sax nag lu ëpp loolu. Mm. am ñoo xamante ni lañ man la ñuy def. waaye seex moom Fadal mësta denc benn dërëm banque amut déedéet. Mm. fexe na it ba ku ne am ci yiw gi ndax ku ne am na lum la teg nga indi dara. ku am na la teg nga indi ko. Mm. moom Cheikh Mouhamadul Fadal mii nga xamante ni moo eggale jumaa ji nga xam ne 49 la tàbbali ne ci. Mm-hmm. ma la wax nii par dërëm par ñaar dërëm. par fukk par ñaar fukk. par par par juróom par ñaar par par ñaar fukk noonu la ko def quarante neuf cinquante ba soixante yàlla dogal bi ñu demee ba ci mille neuf cent soixante trois mhm. ci la jumaa ji door a mat le sept juin mhm. mille neuf cent soixante trois mhm. ci la jumaa door a noppi <laughs> nga xamante ni keroog bi jumaa ji noppee moom Seexul Faadal dafa dajale mbooloo mi ñu dikk mu ne leen salaamaaleykum ñu ne ko waaleykum salaam bu ngeen ma noppee gis noppee gis Sëñ Tuubaa doomi Sëñ Tuubaa ngeen di gisati seen yaxuk jumaa ngi noonu nag lu ci waay mën a defati da ngay yokk rek waaye seen yaxuk jumaa ngi noonu mm. loolu soxna si li ko li ma li ma bëgg a fi firndeel foofu mooy mm-hmm. gis nga sept cent million yooyu Cheikh Mouhamadou Fadal defoon mm-hmm. yàqu wudde jumaa ji ba fii may waxee yow nii mm-hmm. xool li karo ngay gis wala sensé bunt waaye la Cheikh Mouhamadou Fadal tabaxoon ab tabax moom mën naa ne gas gisatoo ko la Cheikh moom Fadal defaroon maanaam xeer yam ko tabaxee woon. Mhm. yàq dam tabaxoon muy jumaa ji. Mhm. ba léegi moo fa ne. Mhm. ba léegi moo fa ne ku dikk da ngay yokk rek mën ngaa xolli. mën ngaa jékki-jékkal mën ngaa rafetal. waaye nag yàqu jumaa ji moom la ci Amar Fadal defoon ba léegi soppi ko kenn laalu ko. kenn kenn daal euh, jamono jamono jamono Cheikh Mouhamed Fadal yemook ak Senghor nekk ci bopp réew mi ñoom ñaari itam yàlla def ñu déggoo woon. Euh, mm. ndax loxol nguur duggoon na ci liggéey bi jamono jooja. waaw xam nga ñoom kilifa yi niñ doon doxee. Mhm. fi nekk nii ba fii may xëy jiw nii Cheikh Mouhamadou Mountakha nii noonu noonu lay doxee gis nga kilifa yi fi nekk. Mhm. maanaam loo dégg ñu ne sembal nañ ko Sëñ Tuubaa. Mhm. xaaruñu ci daray état. dañ caa fekk murid yi. dañ caa fekk murid yi xaaruñu ci daray état. day fekk ne nag murid yi ay ay citoyen lañ. ay te ñoom ñoom ñoo bokk réew mi lépp lu ci waay indi ne lii nañ ma ko ci defal ñu bokk ngir bokk ko ñun liggéey bi. des na la ko ci defal. Mm. waaye nag man naa ne jumaay Tuubaa ji yaxu jumaay Tuubaa ji moom. Mm. ñàkku murid yi képp ko def. ñàkku murid yi la. dërëmu keneen demu ci. Mm. léegi nag lañ jamono dema dema dem ba egg ci parce que daanaka soxna si bu njëkk. comme li xew léegi nga xam ne état day joxe xaalis daanaka bu njëkk mën naa ne amutoon. Mm-hmm. waaw en xew-xew jot état yu ni enveloppe wala yu demee noonu. Mm-hmm. léegi la am la xew rek. waaye bu njëkk ñoom mag ñi xamuñu woon loolu ñoom mag ñi liñ daan xam li ñu daan dundee naka mooy sukkandiku ci seenu ñaq. Mm-hmm. sukkandiku ci seenu ñaq li ñëpp moom li état moom dañuy bàyyi ñu defee ko loo xamante ni pub lu lu ñëpp bokk mm. waaw waaye am maa sa yëfi bopp état di ci dugal sa loxo léegi la xew waaye bu njëkk ñoom daw ñu doxee noonu mm-hmm. jumaay Tuubaa moom jàppal ne lépp lu ci dem ñaqu murid yi la mm-hmm. murid yee ko ñaq jox ko seenu sëriñ bu defal leen ko ci mm-hmm. jumaa ji bi bi ko moom Mouhamadou Fadal defaree ba noppi juróomi sooroor la ko defoon juróomi sooroor juróomi sooroor ñeenti soroor yi benn bu ci nekk mi ngi kawee soixante six mètres mooy li mu allahu allahu boo ko adadee soixante six la lay jox hmm. ñeenti soroor yu ndaw yi benn soroor bu mag bi mi ngi doon quatre vingt six mètres virgule virgule virgule quatre vingt six muy soroor bu mag bi nga xam ne ci la Lamp Fall nekk jumaa ji bi ko Cheikh Moustapha da liggéeyee ba noppi six mille personnes la mën a jël ci biir jumaa ji six mille six mille places. mooy juróom benn junni. juróom benn junni places ca jamono booba soxna si. Hmm. nga xam ne euh, ginnaaw bi danaa ci dikk ba ci niñ ci doolee yeneen ñaari sooroon yeeg ni mu toll ak yu demee noonu. Hmm. Hmm. waaye nañ jàpp ne la sëñ Tuubaa gënoon a bëgg ci ak nekkam. yàlla dogal na di ci matuk seex moom ci nekkuk Cheikh Mouhamadou Fadal la mate. muy dem Màkka. gise ji gis gise soppeem ba sallallahu alayhi wa sallam. la ca topp mooy jumaay boppam ji. laneen la ca topp nag mooy ñibbisi këram gi di Touba te Cheikh Mouhamadou Moustapha defaloon na ko ko. Mhm. borom dëkk bi ñibbisi na ci dëkkam keroog bi mu faatoo loolu la ko doon tàggee. Mhm. ñett yi mooy li Sëriñ Touba gënoon a bëgg. te defal nañ ko ko ak eggali jumaa ji Cheikh Mouhamadou Fadal moo ko ko defal. Mhm. ni ko defee it wax naa la ko ci jamono bu jafe. bim jumaa ji eggee ca moment boobu ba mu eggee biñ ko estimé wax naa la ko un million trois cent quarante mille euh, quarante trois cent quarante la woon. dollar dollar. loolu boo ko xoolee ay 730 nangam millions la lay jox 1963 la 7 juin 1963 la noppi. Mm-hmm. Cheikh Mouhamed Fadal ubbi ko ci teewu ci teewaayu président Léopold Sédar Senghor. Mm-hmm. Euh, bi mu ko ubbee ci la euh, bi Sëñ Fallu bi mu defee ji jumaa ji ba noppi ci biir jumaa ji da cee defaale daaree xam-xam. Mm-hmm. biir jumaa ji. am na daaree xam-xam joo xamante ni 1963. lañ ko tàmbali ba fi may waxee yoon yi jumaa jàng fa daara jàng fa. Hmm. bari na ñoo xam ne seen i baay jàngee nañ fa seen i maam jàngee fa ñoom ñu jàngee fa man mii di wax ak yow nii. Hmm. sama baay jàngee na fa ma jàngee ja. ca ja ca daara jooju si jumaa ji bi mu ubbee jumaa ji ba noppi daf ne ah jumaa kat ak daaray ànd ndax ki jógee ci daara mooy mën a jiite jumaa. Hmm. ci la fa def daaray xam-xam ju mag daarul maarif la ko tuddee. alxaaji sëñ Bousso Ilimaan ab jarbaatam la ndax doomi soxna Faati Kandi la moom Mamoor Jaara mhm. Mamoor Jaara ak Sëñ Tuubaa bokk ndey ak baay kon ab jarbaatam la mhm. sëñ sa ilimaan la indi jox ko jumaa ji mu di fi jiite mu jox ko daaree xam-xam sëñ bu sa ilimaan yor ko ñetti weer mhm. delluwaat si amul faadal ne ko comme daaree xam-xam la te nga daa bëgg mu sax da nga koy jox ndaw dang nga koy jox gone goo xam ne moom mën na cee yàgg ci la ko si faadal wax ne ko kol a doy seetal ku la doy nga wax ma ko ma jox ko ko ci la wax ne ci la ko tànnal kuñ naan alxaaji Mbàkke jaxate ñu di ko mm-hmm. moom mi ngi dëkk foofu yi ci wetu jumaa ji sëñ as jaxate ci la ci la ko ci la ko sëñ moom a Ahmadu woolu mu ñëw mu yëkkati daara ji ko ca loxoom sëñ as jaxate mooma nag a 1963 ba léegi moo fi nekk yàlla na yàlla na yàlla dolli guddal fanam amiin ba léegi man ñi di wax jàngal sama baay mooma jàngal mm-hmm. sëñ as jaxate mooma ba léegi moom moo yor muy daaru maarif mm-hmm. kon ñu jàpp ne Cheikh Mouhamadou Fadal bi mu fondement yi Cheikh Mouhamadou Fadal Cheikh Cheikh Mouhamadou Moustapha moo fondement waaye Cheikh Mouhamadou Fadal moom mottali moom mottali jumaa ji jamono bii ma lay wax ni ubbi ko le 7 juin 1932 ci weeru tam xarit Mhm. waaye teewul keneen ku ñëw itam la nga ko waxee sànq am loo ca yokk euh, mhm. barkeeloo ko ànd ci taalibe yi mu fi fekk Cheikh Abdoul mhm. Ahad Mbacké mi fi toog 1968 ba 1989 moom itam am na ñàkkul lu mu def ci jumaa ji boo nu ko mënee yeggee waaw Cheikh Cheikh Abdoul Ahad moom bi mu toogee li mu njëkk a def mooy xam nga Cheikh Fadal dafa def lu yéeme li mu boole woon moo bari parce que daa doonoon doomi Sëñ Tuubaa mu doy sëkk ab cër hmm. waaye doon boroom xam-xam yit nag moom si am faadal hmm. u tabax jumaay Sëñ Tuubaa ba pare doon imaam yi Sëñ Tuubaa moom si am faadal yi yëpp yàlla dogal na moo ko boole woon hmm. moo doonoon xalifa général des mourides moo jiite woon liggéey bi waaye moo bi jumaa ji eggee moo doonoon imaam bi ba ni fi jógee moo doon jiite moo doon jiiteel boppam moom si am faadal bi yàlla dogalee mu jóge fi Cheikh Abdoulaye Lahat bi mu toogee Cheikh Abdoul Khadir la jël. Hmm. indi ko muy imam. Hmm. mu nekk muy jiite jumaa ji. waaye it nag mu fas yéenee yokk jumaa ji ndax ni ko Cheikh Ahmadou Fadal tabaxee woon desoon na bayaal. Hmm. ci la Cheikh Ahmadou ndax Cheikh Ahmadou Fadal bi mu tabaxee jumaa bi mu dikkee fekkoon na Touba lotissé guñ ko. Sëñ Fallu moo lotissé Touba. bi mu lotissé Touba jumaa ji penc mi dañ koo bàyyi bàyyiloon ab bayaal. ci bayaal boobu noonu. ci la ci la génne woon seen kër yooyu noonu maanaam muy kër boppam bi mm-hmm. kër gi nga xam ne moo doonoon kër Sëriñ Tuubaa kër Cheikh Mamadou Basir la woon mm-hmm. fi doon daari kaamil kër Sëriñ Abdou Khadir la woon Cheikh Abdoulaye Lahad nag bi mu toogee xalifa daf ne jumaa ji Sëriñ Tuubaa ji danaa ko yokk danaa wutal alxuraan kër danaa wutal Sëriñ Tuubaa kër mm-hmm. yii moo njëkkoon yii moo doonoon ay ay débitam Sëriñ Souhaïbou rakkam laa laaj kër këram addi Sëriñ Tuubaa mu jox ko ko mu def ko daari kaamil daari alxuraan kër sëñ Basiiru gii ci la wax ak siamo sëñ Moustapha Basiiru sëñ Moustapha Basiiru waxtaan ak ay rakkam ñu jox addi sëñ Tuubaa nga xam ne kon dèjà comme ñaari kër yi génn nañ mm-hmm. jumaa ji danañ xam lam la dese ci bayal ak lan lañ ci mën a yokk mm-hmm. ci la door a def yokku jumaa ji loolu mm-hmm. moom it wax dëgg yàlla ci fa sëñ fa Cheikh Mouhamadou Fadal na ko Cheikh Mouhamadou defee woon Cheikh Mouhamadou Moustapha defee ko woon noonu moom Cheikh Abdoul Ahad it foofu rek la jaar bi mu dikkee dafa dajale taalu bi yëpp xamal leen ne leen liggéey bi du sama liggéey liggéey bi sëñ Tuubaa kon nag naka lañ koy doxalee mooy na ko Cheikh Fadal doon defee di joxe ay sas di tobbi ay sas waaye di ko bàyyil ay tool yi àllarba ci lay def ci lay def yokk jumaa ji noonu tabax daaree kaamil euh, tabax tabax daaree kaamil tabax kër Sëriñ Tuubaa gi waaye nag marbo liñ naan marbo moom Cheikh Abdou Lahad moo ko njëkk def ci jumaay Tuubaa mm-hmm. marbo ko njëkk def ci jumaay Tuubaa karo bu seer la wax dëgg mm-hmm. yàlla boo xam ne bu ca jamono ba mu koy def jafe woon na lool mm-hmm. moom Cheikh Abdou Lahad liñ daan yokku jumaa ji mm-hmm. moom Cheikh Abdou Lahad moo ko fi def moo ko def ci jumaa yi Sëñ Tuubaa ji waaye kërug alxuraan googu ñuy wax moo ko ci def ndax it Sëñ Tuubaa noonu la baaxoo def ñun jumaa yi njaarim ba mu noppee dafaa def daare kaamil wut mbooloo moo xamante ni bis bu yàlla sàkk suñ julee tisbaar danañ jàng kaamil suñ julee fajar danañ jàng kaamil tisbaar danañ jàng kaamil takkusaan danañ jàng kaamil timis danañ jàng kaamil gee danañ jàng kaamil mm-hmm. nga xam ne bis bu yàlla sàkk juróomi waxtu yi waxtu wuñ julli ba pare mm-hmm. ña koy def mu yoral leen seenub dund nag di leen jox ay xari tabaski di leen xottil ay yére ngir teralee ko alxuraan moom sëñ tubaa looloo tax Cheikh Abdoulaye Lahad bi mu toogee xalifa bokk na ci lim defal sëñ tubaa ci jumaa bi mooy daaree kaamil mm-hmm. te léegi ña koy wéy di di ko jàng ba si may wax ak yow nii ma nga daari kaamil ji ma ngay wéy mm. ña ngay wàcce kaamil ba juróomi waxtu yi waaye bibliothèque daari kaamil gi nga xam ne moom la tabax nga xam ne mooy bibliothèque bi mm-hmm. mboolem téere buñ daan buñ daan wuti bitim réew daa fexe ba am ci benn mm-hmm. jënd ay machines yu mën a mool mm-hmm. ñi nga xam li nga xamante ne ay kaamil alxuraan la woon nga xamante ne bu njëkk dañ ko daan bind bi bitim réew di ko indi moom Cheikh Cheikh Abdoulahi Lahat dafa dajale ñenn ci njabootu Sëriñ Tuubaa gi dafa am ñum ci tànn teg leen biir daari kaamil diir bu yàgg yoral leen seen lépp mm. teg leen ko ngir ñu bind ko mbindum loxo mm. ngir ñu bind kaamil bi mbindum loxo mm-hmm. mu mool ko mu mool ko ci machine yi nga xam ne moom la jëlee woon bitim réew mm. ak téere yi nga xamante ay téere yoo xamante ne kenn mënu koo bindaat mm-hmm. waaye mu indi ko mool ko teg ko foofu ci bibliothèque bi nga xamante ne mbooleem téere boo soxla ci àdduna ak fu mën a nekk demal wëri ko daari kaamil jiitu ca itam li fi li fi Serigne Touba bind bàyyi euh, loola yëpp boo demee. waaw Serigne Touba la ci jiital li Serigne Touba bind bàyyi fi moom la ci jiital. Mm-hmm. ndax am na ci majmuwa majmuwa boo xam ne ginnaaw yàlla bu dul woon si yëpp laat mën naa jot ci danañ jafe. Mm-hmm. ndax bi mu defee daare kaamil dafa fexe ba majmuwa bi ma lay wax ne ay lettre la. Mm-hmm. lettre yi Serigne Touba daan bindanteeg buur yeeg kilifay diine yeeg kilifay aada yeeg ñi mu daan jëflanteel ay mm. lettres yoo xam xamante ak ay waxtaan yoo xam ne. Mm. yu am solo la yu mu daan def. Mm. ay tomb yu daan tomb ci suuf ak yu demee noonu moom la fexe ba dajale ko dajale ñenn ci njabootu Sëriñ Tuubaa ji liir bi mu leen tëj daaray kaamil ñu bind maji moo boobu nga xam ne ay leetar la. ak ay dénkaan ak ay tomb yu Sëriñ Tuubaa daan tomb ci suuf ñu bind ko dajale ko ci benn téere. téere bu am solo am solo am solo am solo boo xam ne lépp lu ne liir réer ci doxinu Sëriñ Tuubaa boo demee ci téere boobu da nga ko ciy fekk. daaray kaamil muy lu am solo boo fa duggee rek xam ni Serigne tubaab bind na bàyyi fi waaye itam bëgg na ñu saxoo xam-xam. ginnaaw mm. Serigne Abdoulahi Ahad Mbacké ni nga ko waxee sànq. Cheikh Abdou mm. Khadre moo ñëw Mbacké moom mm. itam ba 1990. ndeysaan Cheikh Abdou Khadre nag yàlla dafa dogal ndeysaan onze mois rek la toog xalifa. da ciy yàggul daa fi mu toogee ci siif bi. bi muy fi muy jekkandikoo la suñu borom di ko dogalam. mu tànn dëkkaale ak yàlla. waaye man naa ne xilaaf ak Cheikh Abdoulahi Lahad mm. xilaaf ak Cheikh Abdoul dugg ci biir xilaaf ak Cheikh Abdoulahi Lahad mm. ndax ñoom ñaar fi mu ne ni ñu soppantee woon ak ni ñu woon ak ni ñu déggoo yàlla dafa dogal fi mu ne ñoom ñaar ñoo maase mm. ñoom ñaar ñoo ñetti weer lañ magantee tey maga niñ magantee ñetti weer teewul Cheikh Abdoulahi Lahad fi mu nekk nii lépp loo mas dikk dugal ko ci noppam xam nga lu lay waxa daa wax nga ko si ñëpp wala ndax waxtaan nga ci si ñëpp moom loolu la du waxee. Mm-hmm. muy tudd doom muy jullee ku faatu muy julli jumaa ji muy muy muy mboolem. Mm-hmm. lu aju ci wàllu diine ak wàllu doxalinu adduna moom Cheikh Abdou Khadir la ko féetee woon. Mm-hmm. nga xam ne mën naa ne ñoom ñaar seenu xilaafa dañ koo ànd. dañ koo ànd Cheikh Abdou Khadir amul lenn lu masaana def te àndu ceeg Cheikh Abdou Khadir Sëñ Abdou Khadre it amul lu ci Sëñ sëriñ Ndaxate. kon kon ci ci liggéeyu Serigne Abdoulaye Mbacké mun nañu jàpp ne Serigne Abdou Khadre. ma nga ca comptable la ca ni ñu koy waxee waaw. loxo ma nga ca ma ma ma nga ca diir. Mhm. moo tax moom fi mu toogee daanaka onze mois rek la toog. Mhm. suñu borom dogal daanaka mu wuyu di boromam. Mhm. ci la ko Serigne Saliou Mbacké daal di wuutoo ci jamono. 1990. Mhm. jotutoon biral yéene ci jumaa ji lu mu ci bëggoon a def bu toogee. déedéet loolu de wax dëgg yàlla xam naa ne jàppuñu ko loo xam ne maanaam yëbitoon na ko. waaw euh, wala mu tàmbali woon ko ci jumaa ji moom. diir onze mois yi mu fi def wax dëgg yàlla loolu yëguñu ko wax dëgg yàlla egsi fi waaye mënees naa jàpp ne rek loxoom jugu ci. ndax euh, ca liggéeyu loxo mos loxo mos ndax wax naa la ne de Cheikh Fadal moo doonoon imaam bi. Mhm. bi mu fi jugee Cheikh Abdoulaye Khan moom la féetewoo jumaa ji. Mm-hmm. Cheikh Abdou Khadre Cheikh Abdou Khadre féetewoo jumaa ji. Mm-hmm. di jiite ba ni mu fi jugee. Mm-hmm. Cheikh Abdou Khadre ba ni mu fi jugee maanaam mille neuf cent mille neuf cent soixante huit. ba quatre vingt dix bi mu fi jugee. ñaari ajjuma la fi ñetti ajjuma la fi masa faat. ñaar yi dafa dem Màkka benn bi dafa mooy fa bi mu feebaree ba war a fee jugee. mille neuf cent soixante huit naa laa wax. ba quatre vingt dix. kon kooku xam nga ne wax dëgg yàlla mooy lépp jumaa ji. <laughs> ñaari ñetti àjjuma dafi ma safaar mhm, koo koy jumaa ji <laughs> mooy mooy jumaa ji Cheikh Saliou Mbacké moo ko wuutu 90 mhm. ba 2007 euh, moom mhm. euh, doomu Serigne Touba bu mujj ci xalifa yi euh, ban taxawaay la amoon ci jumaa jooju moom it macha allah bi yàlla dogalee mu toog doon Serigne Touba ci kaw suuf jumaay Touba ji Serigne Saliou ay jëfam foofu xool gis ko côté boo xool rek da ngay gis jamono da gis jëfi Serigne Saliou maanaam liñ naan wax naa la ne liñ naan marbo Cheikh Abdoulaye moo ko njëkk a def ci jumaa ji waaye wërale ko marbo nag hmm. ba ci sooroor yi ba ci sooroor yi kaw ba suuf Serigne Saliou ko def hmm. six milliards ba toogee six milliards la ci def diggante quatre-vingt-dix ba quatre-vingt-quinze na de ci diggante bi mu toog xalifa moom la ci def hmm. nga xam ne kon ci yàlla dogal na moom ci Serigne Saliou bi bi mu fiy jóge rek bi mu fiy deux mille six mooy bi mu yëkkatee ab lim 17 milliards la yëkkati ca jamono booba. Mhm. daal di ñaari milliards yi dama bëgg ñu def ko ci jumaa ji ngir yeesalee ko ko yeneen 15 milliards yi ci des nañ ko def ci liggéeyu dëkk bi ci loxo Abdoulaye Lahat la ko tegoo Abdoulaye Wade muy en 2007 mooy bi élection yi jubsee mhm. te sëñ Sall yi defoon déclaration daan ne ko daan li ma ko doon liggéeyloo mhm. damaa bëgg mu bàyyi ba élection yi passé te ñëpp naan si saa yi kon xamoon na ne day to day faluwaat comme <laughs> ni comme ni ko murid yi faral di waxee mm, mm, mm, nga xam ne kon loolu da ngay gis ne ci jamono moom bi mu toogee xalifa euh, fekk na Sëñ Abdul Ahad yokku na waaye liñ naan taaral moom Sëñ Saaliw ko def jumaa ji dolli làmp yi euh, euh, mar boo ko kaw ba suuf waaye a ko it wër maanaam li nga xamante ni moo ko wër muy ëtt boobu ko wër noonu mm-hmm. xam nga fi yàlla baar moo ko miire mm-hmm. maanaam ñii de gis ñee daj baara la waaye maanaam wërale a ma mar bokk mu wër moom mm-hmm. loolu sëñ Saliou ko ko def mm-hmm. ci ay jamonoom yokk éclairage bi yu demee noonu barabu sëñ Tuubaa bii wax dëgg yàlla mu liggéey ci liggéey bu rëy moom sëñ mm-hmm. euh, yi nga xam la marocain yi di def moom sëñ Saliou liggéey na ci liggéey bu rëy rëy rëy bari bari bari bari euh, ci wàllu mooy ci wàllu taaralaar rek loolu ma la wax ne diggante bi nga xam ne moom la fi toog moom doon sëñ Tuubaa six milliards def na ko ci jumaa ji juróom benn milliard ci diggante bi mu toogee suñ doonee suñ Tuubaa nga xam ne moom ba bi mu fiy jógee bàyyi na fi deux milliards jëkkati na deux milliards yu mu tegoon ci taabal ji ne yii nañ ko yeesalaatee jumaa mhm. jumaa ji yàlla dogal laataa ñuy def yooyu yëpp suñu borom dogal ci kàttanam wuyu ji boroomam moom moom suñu te loolu yëpp ci murit yi ba tey ak uh, liggéey gi ci tool yeeg. yu lépp ñàkk murid yi la moom koy soxna si <laughs> li ma la wax ni mooy que ne jumaa ji moom naka jekk mhm. fi nekk nii maanaam sëñ sëñ mboolem ko fi toog di sëñ Tuubaa mhm. da ngay ràññee ràññee gi mooy li nga xam ne moom la murid yi dajale mhm. di ko joxe ngir sëñ Tuubaa loola moom ci yëf sëñ Tuubaa képp lañ defal lu mel ni juma nga xamante ne bari jaamukaay yàlla ku fi toog doon sëñ Tuubaa luñ la jox a jox ñàkkoo murid moom ci jumaay Sëñ Tuubaa nga leen koy defal la mhm. nee nag leneen nag mën na dem feneen bu yàgg rek am na mbokk moo xamante ni wutoon na fi matériel bu baax bo matériel sonorisation bu baax mhm. indi woon ko pour bëgg ñu def ko ci jumaa ji mhm. waaye nag Sëñ Muntaxa ki Sëñ Alaaj Baara kilifa gi mu ci fekkoon daf leen mën nañ koo def ci leneen loo xam ne ci Sëriñ Tuubaa la jëm waaye jumaay Sëriñ Tuubaa ji moom mhm. li ma ñàkku murid yi di jox mhm. moom laa ciy def nga xamante ni ak ñaar dërëm yi murid yi di dajale daal mhm. moom moo dem ci jumaay Sëriñ Tuubaa ji ba fii may xëy yoon moom moo ciy dem leer na sëriñ Mouhamadou Lamine Bara moomale euh, ñetti at la fi def moo ubbi itam jamonoy sët yi euh, ana mm-hmm. lu mu def ci jumaa ji tey loo xam ne mënees na kaa euh, jàpp sof ko ci li nga xam ne moom la ñu ko jiitu defoon tubaarkàlla macha allah man wax dëgg yàlla caawa la ñu baara saa yi ñu ko tuddee. soxna Faat soxna Faat Thiam maa ngi jéggalu waaye sama xel day dem ci alaaji Mbañ ndeysaan ndax ni mu demee woon ak moom. dëgg la bu passage maa ngi ko ci ziare a moom it suñu borom yokk xéewalam. amiin ci digganteem ak alaaji Mouhamadou Lamine moom. ndeysaan dëgg Baara bi toogee doon sëñ Tuubaa. li mu a def mooy miiree jumaa ji. di miiree yi. loolu fa Sëñ Saaliw defoon ci wàllu décoration yi marocain yi di def Sëñ Cheikh Mouhamadou Lamine Bara yeesalaat na ko waaye nag daal ne doomi Sëñ Tuubaa yi nga xam ne ñoo am ay fi fii Tuubaa fu ci waay nekk danaa fa jëlee tëli indi ko ci jumaa ji nga xam ne ku jógee ca penc moom ci jumaa ji jëm si direct hmm. pencum doomi Sëñ Tuubaa yi ci Tuubaa yépp Cheikh Mouhamadou Lamine Bara tëli bi mu mbooleem fu ñu denc doon doomi Sëñ Tuubaa wala foo xamante ni penc ma fa nekk ci doomi Sëñ Tuubaa mm. ci jumaa yi doomi Sëñ Tuubaa ko moom daa fexe bañ tëli ko defal ko wenn yoon boo xamante ni ci biir jumaa ji la dëkk mm. moom it wax dëgg yàlla dafay yàggut ndax fanweeri weer rek la fi def mm-hmm. <laughs> daanaka ñaari at ak genn rek la fi def yàlla dogal bi muy noppi ci loolu daanaka mën naa ne moom Seex Lamin Baara ci la yàlla dogal suñu borom ah mu daal di fekki ay baayam mm-hmm. ndax daanaka ñaari weer ñaari at ak juróom-benn weer képp la fi def mm-hmm. bi mu yeesalee dara ci jumaa ji defar tali yi di xalaat yeneen ak yeneen. Mhm. ci la suñu borom dogal moom mu daal di fekki ay baayam. Mhm. sëriñ Sidi Mokhtar Mbacké mu sedd ma euh, mu mu noppi ma waaye bari xam-xam lool macha allah. Euh, mhm. moom itam wàccul dara yoon wi nga xam ni moom la ñu ko fi jiitu euh, doon. ba tey ci jumaa ji moom lan la ci amoon ni taxawaay. moom Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Cheikh Sidi Mokhtar bi mu toogee xalifa moom moom li mu njëkk def mooy yokk jumaa mooy yokk sooroor yi hmm. dafa wax ne jumaa yi Sëñ Tuubaa yi comme si amoon Fadal juróomi sooroor la defoon hmm. te ku yokkut ku ne yaa wàññi hmm. ci la daal di tàmbali yeneen ñaari sooroor gis nga mooy li ma lay wax nii ci firnde ci mooy li lay wax naan la jumaay Sëñ Tuubaa ji lu ci dem ñàkku donga yi la Cheikh Sidi Muxtaar bi mu xalaatee ñaari sooroor yi bi mu te xeer wi la waxtaan ak du Mouhamadul Muntaqa def ko jëwriñ ji ñu daal di tobbi ay sas daal di toobbi ay sas daal ne murid yi kër gu ci nekk nañ xam ne lii ñuy liggéey Sëriñ Tuubaa ñoo ko man a defal suñu bopp. na ko Sëriñ Fallou defee woon. na ko Sëriñ Fallou defee woon. Cheikh Abdoulaye Lahat defee woon ko noonu. Mm-hmm. Sëriñ Saliou defee woon ko noonu Sëriñ Sidi Moussa bi mu moom loolu la njëkk a def. Mm-hmm. bi mu tegee xeer yi ci kanam Sëriñ Mouhamad Cheikh Mouhamadul Mountakha ci la def jëwriñ ji Cheikh Mouhamadul Mountakha woo murid yëpp nag ni leen nag na ngeen xam ne kenn duñu ko defal ay malaayika duñu wàcc ñu ko defal ñun ñoo ko defal suñu bopp ndax xam nga soxna si jumaa ji. Hmm. bi ko Sëñ Tuubaa ñaanee boroomam. 1926 Sëñ Tuubaa bi mu koy dénkaane dafa waxoon ne bu ngeen ko defutit ay malaayika danañ wàcc def ko. Hmm. léegi nag bala ñoo xaar ay malaayika di wàcc di ko def ñu defal ko ko ñu taalibe yi. loolu tax Sëñ Sidi Muxtaar bi mu tàmbalee ñaari sooroor yooyu bi mu koy xalaat bi mu tegee xeer yi boo Sëñ mu Muntaqa daf ne taalibe yi nag ñëw leen ñu ànd ko liggéey. kër gu ci nekk nag xam nga yoonu murid noonu lay doxee. Hmm. waa kër Sëñ Muhammadu Faadal dajale seen addiye indi waa kër Cheikh lay Lahad waa kër maam Cheikh Anta waa kër borom saam mm. waa kër borom Daarul Muxti yi kenn ku ci nekk waxataan sax njaboot dajale la nga am indi addiye ndax naka jëkk loolu moo am ci yoonu murid mm. yoonu murid doo ko gis mën naa ne taalibe Sëñ Tuubaa yee ko defal Sëñ Tuubaa mm. misaal la rek Tuubaa ca kanam gii mm-hmm. Tuubaa ca kanam Tuubaa ca kanam mën naa ne lépp loo xamante ni loxo nit jote na ci ñoom ña a ca xanaa yi nga xam ne état ko mën a def mm-hmm. bëri ki démb rek dégg nga ñu ne juróom benn poste de santé yoo xamante ni ñoom tabax nañ ko ba pare. Mm-hmm. lañ ca la lañ ca lépp def nañ ko ñoom état lañ cay xaar. ñu affecté fa ay nit waaw waaw te yaakaar naa su ma juumul sax ñu ngi ci am yaakaar ndax daa mel ne démb rek. Mm-hmm. ministre bi recevoir na leen pour incha allah bëgg mois de juin bi ñu doxal ko. Mm-hmm. sëñ Sidi Muxtaar noonu la tàmbalee ñaari sooroor yi. yëkkati ko ba mu dem moom it 60 mètres. sëñ Sidi Muxtaar ñaari sooroor yi mu ciy def 60 mètres la kawe. lim jël ci xaalis it lu néew maanaam li gën a néew ci lim jël man na deux milliards moom moom sëñ Sidi Moustapha ñaari sooro yi ñu def mu ñaari sooro yi moom la yokk ci jumaa ji mm-hmm. muy juróom-ñaari sooroor mm-hmm. kon jumaa ji da ngay jàpp ne kon juróom-ñaari sooroor la am na ñeenti sooroor yoo xam ne soixante six mètres la mm-hmm. am ñaari sooroor yoo xamante ne soixante mètres la am benn sooroor boo xam ne quatre vingt six mètres virgule quatre vingt six la mooy mooy bu mag bi mooy làmp mooy làmp faal bi. Mm-hmm. ginnaaw sëriñ Sidi euh, Mokhtar Mbacke sëriñ mu mm. Mountakha Mbacke mi nga xam ni yàgg na koo taf ci wetam. moo ko mm. fi wuutu moom mbégte mi euh, taxawaayam ci réew mi ñëpp rafetlu ko. waaye mm-hmm. wàccul itam yoon wi nga xam ni way juróom yu baax yi ko fi jiitu ci la ñu mm-hmm. newoon. waaw Cheikh Mouhamadou Mountakha moom it bi mu wuutoo Cheikh Sidi Mokhtar daa dikk ne ah juma rafet na lool baax na lool te juma ji ni mu war a mel lépp sama samay kilifa def nañ ko ko. Mm. waaye jumaa daa am ku war a ñëw ci jumaa ji di jiite hmm. kooku fan kooku fan lañ koy defaree hmm. moo tax Cheikh Mamadou mun ni ah ndekam jumaa ak daara mënuñoo ñàkk ànd kon man damay préparer foo xamante ni ñiy ñëw ci jumaa ji foofu la ñuy jóge hmm. muy université bi mu war a coûter trente sept milliards trente sept milliards yaakaar naa ne ba Sénégal di Sénégal ba fi may wax ak yow nii mennum Seex Muhammadul Muntaqa nga mas a dégg nga mas a dégg ci kenn nit ku initier ne moom dafa fas yéene tabax ak université mm-hmm. ah man boog masuma koo dégg de masuma koo dégg ci histoire de wax dëgg yàlla benn nit bu initié ne damaa bëgg tabax ak université wala boog benn comité boo xam communauté communauté boo xamante ni ñoom ñoo taxaw ni dañoo bëgg a tabax dara mm-hmm. benn lu toll ne ab université mm-hmm. suñ maam mooroom Seex Muhammadul Murtada nii bi mu a bi mu liggéeyee Azer ba léegi Azer noppi. Mhm. mu fas yéene am université gis nga deux mille en deux quatre. Mhm. bi ñu teg première pierre bi bi fi maître Abdoulaye Wade dikkee li ko waxoon. Mhm. na ko a tabax. loolu la ko wax. waaw ah, muy muy fàttali rek ba. mi ngoog. waaw loolu la ñu sax moom Moustapha ak Raay. ne ko lii ko mënoo mënoo ko. waaye ci bëggam ak dogoom ak gi gëm ne lu sëñ Tuubaa bëgg am. moo taxoon mu indi fi raay bi waaye seen sëñ Maam Mor sëñ Mourtada looloo tax fi mu nekk nii. Mhm. dañ koo waxoon ne ko université mënoo ko am. Mhm. yaakaar naa université fi mu nekk nii ubbi na de. te mhm. état orienté ay jàng ay ja ay yu fay dem di fa jàngee. Cheikh Mouhamadou Mountakha bi mu dikkee foofu la teg foofu la soof ndax université bi soxna si. Cheikh Abdoulaye Lahad moo ko njëkkoon a bëgg. Cheikh Abdoulaye Lahad bi mu doonee Sëñ Tuubaa ba yokk jumaa ji defar kër Sëñ Tuubaa defar daal kaani université di la nuyee. Hmm. bëggoon koo def. kon moom mottali yéene bi ngir mottali Cheikh Mouhamadou Mountakha dafa mottali yéene Cheikh Abdoulaye Laye. Hmm. université bi fii mu nekk nii espace bii mu nekk nii. Hmm. ak fi nekk ci biir Touba. bu ko Cheikh Abdoulaye Laye miiree tey buñ ko bëggee ma def université moom dana mën am. waaye fuñ koy amee. du doon fii képp ko jegee. université bi biir corniche bi la nekk. daanaka benn te tali corniche bee ko séparé. corniche bi. kon fi mu nekk nii da ngay gis ne doomi Sëñ Tuubaa yi dañoo am gis-gis ndax Cheikh day daal ba mu koy miire. ca jamono booba ñu bàyyi ko fi ba léegi ndax ba koy miireeg léegi daanaka boo xoolee ay fanweeri at ak jàpp ñeent fukki waaye ñu bàyyi ko fi ba ba ba daaw daaw jéeg ñu door ko ñu door faa def la fa war a nekk. buñ ko tasaaree woon buñ dindi woon miiram ba daggoon ko ay kër heure bii heure bii buñ bëggee université ca biir ca biir dëkk ba lay doon waaye ci biir dëkk bi du fi mën a am. kon Cheikh Mouhamadou Mountakha bi mu dikkee lim njëkk li nga xam ne moo ko doon ak bëggam. Hmm. te doon yéeneem mooy la Cheikh Abdoulaye Lahad yéene woon muy def a université ci Touba ab jàngukaay bu mag boo xam ne international lay doon fu ne ci àdduna bi nit jógee man fee jàng say. Hmm. te xam-xam yëpp lañ fiy jàngalee yëpp yi am njëriñ. loolo la moom Cheikh Mouhamadou Mountakha naal. nga xam ne daanaka boo xoolee mën naa ne université boo ko xaajoon ñetti xaaj ñaar yee moom jàll na hmm. daanaka fi mu nekk nii ci ay termination lañ nekk ci ay finition rek daanaka moom lañ moom moom moo ci lañ nekk. Hmm. loolu te ba mu ko tàmbalee léegi soxna si matagul ñetti at. dëgg la yàggul. matagul ñetti eh, ci ñetti at lay war a toll daanaka. Hmm, hmm, ci 37 milliards nag laa wax. kon te moo ne barki démb dégg naa mbokk di ko wax wax lu am solo mooy da dégg naa bataay yi man kat dama mënoon mënatuma ko ndax lan dama cee ngénte ngénteel taaw. wala dama ci takk soxna. wala dama cee eggale sama bâtiment damaa bëggoon a tuxu mhm. waaye ren màggaluñ <laughs> ren màggaluñ mm. wala ren sëñ bi sasu sëñ bi joxewuñ ko ndax dañoo ngénte wala dañoo céete wala dañoo aji màkk wala damaa yóbbu sama yaay màkk wala damaa nàngam doo ko mës a dégg ci yoon murit mhm. kon loolu am na lu muy wane mhm. ndax fii mu ne gis nga suñu borom soxna si loolu li muy wane ne mooy kenn suñu borom ku ko lebar ker mu le mu fay la guddi. dëgg la murit yi volonté ak bëgg gi ñu am seen digg ak mu jaral leen ndax fii may waxee yéen gis nga soxna si. Mm-hmm. ñëwal maanaam yaw bu dee mas ngaa ñëw Touba. Mm-hmm. xoolal Touba wala boog yoonu Mouride. Mm-hmm. ak fu mu mën a nekk ci àdduna. ban kan nga ci xam koo xam ne kër moo dàq moo dàq jumaa ji ci dëkk bi amul. amul amul Touba amul fa kër gu mat 700 millions. ci jamono bii nag laa wax. waxantuma nag ñu ne booba 700 millions la woon ca booba. ca 1963. boobaak léegi ak 6 milliards yi Serigne Saliou dolli ak ak ak ak ak liñ ci tegaat ci diggante bi. seen yitte yëpp yoon wi lenn la mooy suñu boroom yow murid mm-hmm. muridullahi seen yitte yëpp lenn la mooy lépp luy sembulee mm-hmm. lu jëm ci yàlla suñu boroom ñoom jaral na leen lu ne. Mm-hmm. ñoom buñ lekkut baax na buñ naanut baax na buñ solut baax na waaye nag ñeegub yàlla bi daaray alxuraan ji day mel ni war a mel soxna si. wëral adduna bi fu fi am maanaam benn dëkk waxuma la am réew de. Hmm. waaye benn dëkk bu nekk ci benn réew boo xamante ni am na lu man mille daara. Hmm. am vingt mille taalibe xaw ma ko feneen fu dul Touba. Touba Touba googu ana lu fa Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ak jumaa ji euh, li mu bind bàyyi fii lan la def ni ndénkaane ci Touba. rawatina ak hmm. jumaa ji fa ne tey di ko màndargaal. li ca Cheikh Ahmadou Bamba soxna si dafa bari lool. ndax gis nga Cheikh Ahmadou Bamba di muy wër Mbàkke Kajoor la sosé yoonu murit 83 84 mu ñibbi si Mbàkke Bawal mu dem Daaru Salaam 86 muy wëri suufus Tuubaa kon kooka mës toog naa toog lan moo doonoon yitteem mooy suufus Tuubaa képp la soxla woon suufus Tuubaa fii Tuubaa nekk muy fii jumaa ji nekk nii ak garabu bépp moo fi nekkoon Sëñ Tuubaa gis na ko daanaka diirub lu mat ñaari at di fi ñëw di fi wéetal yàlla di fi nekk ay fan léeg-léeg mu dikk fi am fi ay fan jaamu fi yàlla delluwaat daaru salaam dellu siwaat ba mu yàgg mu indi fii fukki nit ak juróom benn fukki nit ak juróom ci ay mag di leen ko sàkketloo bañ ko sàkketee ba pare mu door delluwaat daaru salaam may dëkk ba maam Seex Anta ak dongaye nga xam ne quinze personnes suñ tubaab bi ñu sant ci Touba quinze personnes ci seize personnes la la fi indaaji ba muy jógee daaru salaam ma nga fa bàyyi woon quatre-vingt-dix-neuf donga may leen maam Seex Anta quinze personnes la indaale ak Cheikh Ibrahima Fall muy seize personnes ci la sañ ci dëkk bi dëkk boo xam ne amul ndox amul courant amutu yoon boo fa jëmee da ngay da ngay da da ngay dagg ay ngeer dangay ngay damm ay ngeer pour xàmmee ko yoon wi ngay jaar ak jamono ba mu fay nekk nga xamante ni murid yi hmm. ah, wàllu nañ baraay naan nañ am sebeti coono bu ci nekk dañ nañ ko ci condition bu ne hmm. maanaam jamono bi ñuy sos Touba Sëñ Touba jamono bi koy sos murid yi àndoon ak ñoom hmm. looloo tax Cheikh Mouhamadou Cheikh Moustapha Lo mu sëñ Daam Abdourahmane Lo dañu fi nekk nii coow lee bari rek ba ko tudd ñu ni sëñ Tuubaa ko yar waaye sëñ Tuubaa ñaari génération képp la yar hmm. benn ba moo leen yar ba wàcce leen benn ba moo leen yar waaye eggalewu leen hmm. première génération mooy sëñ Massamba Diop Sam sëñ Ibrahima Sarr Ndiaye sëñ Daam Abdourahmane Lo sëñ Mandumbe Xabaan ñii nga xam ne bi sëñ Tuubaa di sos Tuubaa ñoom la fa indaale woon hmm. sos fa ñeenti daara jox leen ko ñuy seize personnes parce que ñeenti daara la sosoon. Mm. daara bu ci nekk muy bu fa ñeent. ñeenti nit. treize divisé par quatre mm-hmm. par quatre égal quatre. ñeenti daara la sosoon fenn fu ci nekk mu yóbbu fa quatre personnes muy seize. Mm-hmm. ñooñu bi Cheikh Mamadou Lamine Bara ganee àdduna nga xam ne loolu 66 la woon 67 68 mm-hmm. lay door a sànci Touba nga xamante ni ñibbi si na moog waa këram ñu teg ci ñaari at 90 91 Cheikh Mamadou Lamine Bara ganee àdduna doomam mooy doomi Sëriñ Touba ji njëkk a feeñee jamono ci la woo dajale mag ñooñ ñu dikk mu ne leen nag gan gi ñëw indaale leen na seen gërëm yéen gërëm naa leen beneen faw ji ba ca topp mooy ñoom si ci la jël daal ji mu joxoon sëñ Daam Abdourahmane Lo dégg ko sëñ Mandoumbe Xaban ñeneen mag ña topp ca ñooña ñoo nekk ak sëñ Tuubaa soixante euh, quatre-vingt-onze ba quatre-vingt-quinze sëñ dem ci nga xam ne sëñ Tuubaa quatre-vingt-quinze ba ni mu fi jógee moom ci loxob tubaab bi la nekkoon mm-hmm. daanaka amutoon liberté totale ci résidence surveillance la nekkoon mm-hmm. loolu mooy wane kon li Cheikh Mamadou Moussa Lo wax ne Sëñ Tuubaa ñaari ñaari génération képp la yar jamono neex nag ku ci ne ni sama maam Sëñ Tuubaa ko yar waaye ñaari sénération yi képp la Sëñ Tuubaa yaral boppam ci yam sax am na ku ma sa dikk ne ko Mbàkke dama bëgg nga defar ma mu ne ko defar dafa laaj ak taxaw mm-hmm. te man te sama digg sama borom mayatuma ko mm-hmm. maanaam amatu jot. nit ñi. daa naan ci yàlla ba egg foo xamante ni digganteem ak boroomam. Mm-hmm. amatu fa jot. mënu faa xajale leneen lu dul moom boroomam rek la gis ak alayhi salaatu wassalaam mhm. salaatu sitta bi ma dixi sitta taatihi batta maatisa day way juróom benn day julli ci yonent bi juróom day tagg juróom benn weer julli ci yonent bi juróom benn weer mhm. looloo tax ke di ne ko defaral ma mu ne ko oh, amatuma jot gi mhm. da ceetal ne ko bàlla faali di defar naa ko muy suñ bàlla faali jéem kon lim doon mbébét ci suñ Tuubaa lim doon mbébét ci Tuubaa mooy mu doon dëkku boppam boo xamante ni soxna si xam nga ne tuubaa boo xoolee ci biographie. Mhm. mooy dëkk boo xamante ni buur mësu ko yilif. Mhm. Touba. waaw ci Bawol. Mhm. Touba bokkul ci Saalum. Touba bokkul ci Njàmbur. tuubaa bokkul ci Kajoor. Touba bokkul ci Jolof Jolof sax nag la gën a jege. waaye bokkul ci suufu Jolof. mooy di digal boo xamante ni. amul ku ko mës yilif ku dul borom bi subxanahu wa ku ñuy tudd. ci doomu mu mosoo ko yilif mhm. moom sëñ Tuubaa la yàlla dogal moo njëkk a yilif Tuubaa mhm. kon li tax mu tuddee ko Tuubaa yi mooy Tuubaa ak euh, garab la ci aljanna mhm. ak garab la ci aljanna garab booga nam mel ca àjjana ak ay xéewalam xéewal yooyu la doon ñaan suñ borom ci Tuubaa looloo tax mu barkeeloo ca turu garab googu tuddee ko Tuubaa shajaratun minal janna kon li taxoon mu sañc Tuubaa lan moo taxoon mu sañ mu sañc ko nag mooy wajalhu dëban maskana taallumi wa mawdia al fikrati wa tafahumi mooy daf koo sanc ngir lan ngir dëkk bi doon dëkkub xam-xam waaye mu doon mu doon ab centre de recherche mu doon bara mu doon bibliothèque boo xam ne mboolem lu waay soxla ci xam-xam ak fu mu ko mën a soxlaa ak fànn gu mën a doon bu dikkee Tuuba fekk ko fi. daanaka sotti na de. Oh. alhamdulilah rabbil alamin <laughs> ndax baa ngi nii daaray kaamil it la ñu ci wax macha allah ku fa dugg xam ni waaw kuy wër xam-xam boo fa duggee daa daa màndi. mi ngoog mhm. te maanaam daaray Sëñ Fallu jim def ci biir jumaa ji rek laa la wax ci daaray xam-xam. Mhm. waaye dafa nekk ci ay daaray xam-xam kenn xamul nu mu toll ndax biir kër Sëñ Fallu rek fii may waxee yow nii am na daaray xam-xam. Mhm. te digganteem ak jumaa ji zéro kilomètre. biir jumaa ji ni amee daaree xam-xam biir kër Sëñ Fallou it am na xam-xam. Mm. kër Sëñ Chouaïbou man mii falaa yaroo falaa jàngee def naa fukki at ak ñaar daaree alxuraan la ak daaree xam-xam. Mm. biir kër Sëñ Basiru jumaay Sëñ Basiru ji pencum Sëñ Basiru am na daaree xam-xam. pencum Cheikh Mouhamadou Moustapha jooju ci Daaru Xuddoos Sëñ Xaadim Mbay doon fa jàngale am na daaree xam-xam man mas naa faa jàngee. Mm. kon da ngay gis ne Sëñ Tuubaa li mu ñaanoon yàlla defal na ko ko. waaye waltus bi tan fii jamaatan tuqiim asalawaatu xam sa di ëbal yaa xakiim nga xam ne euh, li ñaanoon suma boroom ne ko sama dëkk bi nañ fi saxal waxtuy juróom. Hmm. yoo xam ne tuqiim lay doon day sax. Hmm. day sax asalawaatu xam sax deux benn yaa hakiim loo xam ne du am rupture. Hmm. duñ ko bàyyi jamono bi pose ko. continuer waat ko jamono bi looloo tax Cheikh Mouhamadou Mountakha bi ko fi bi dikkee malgré euh, situation bi li muy critique critique critique fexe na ba. am nu mu ko réglé. Mm-hmm. noo xam ne ña nekk ci biir jumaa ji muy daayira bi biir biir jumaa ji. ñoom moom ala kulli xaal danañ julli. du am benn bis boo xam ne jumaa ji duñ nodd wala duñ fa ñàkk a julli déedéet. Mm-hmm. fukki nit ak ñaar moom faaw ñu jullee lu néew néew néew. Mm-hmm. loolu li ko waral mooy que ne la sëñ Tuubaa ñaanoon. ay baayam ay magam. ñëpp fexe ba loola di ko nit ñoom. bu amee rupture ci moom rek wallahi mën naa ne échec lay doon. donte sax moom xalifa euh, Sëñ Tuubaa du échec mhm. looloo tax Cheikh Mamadou Mountakha jaayante woon ko mhm. ak situation bi nu man a demee mhm. moom dana fexe ba régler ko ci ci manière boo xam ne dana dëppook jamono waaye li Sëñ Tuubaa bëgg moom dana am jërëjëf Mbacke am na solo yàlla nu hmm. yàlla fayal sunu mag ñu baax ñi yàlla dolli ay teraangaam ak xéewalam ci ci Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ba euh, teraanga yooyu yàlla law ci askan wi yëpp law ci àdduna ñu ngi lay gërëm bu baax euh, la ñu ca mënoon a dolli bari na waaye waxtu moo ñu dab ñu amoon hmm. mbégte lool waxtaanee jumaa jeeg liggéey bi ak euh, xalif Cheikh Ahmadou Bamba ku ci ne taxawaay bi nga ci am ñoom ñëpp hmm. macha allah kenn seetaanu ci mbir mi am tànki gannaaw kanam la dem boobu ba léegi lii ñu sumb it ni liggéey muy leneen université baak yu ca aju yàlla na ko yàlla sottal ci jàmm te mu ànd ak barke jërëjëf Mbacke Serigne Bara amoon nañu mbégte lool dalal la ci waxtaan wi. jërëjëf soxna Fatou Thiam am na rafetlu nañ waxtaan wi bu baax a baax a baax euh, am na solo wax dëgg yàlla lii mooy li am solo. Mm. lii dara da koo gënul. Mm. démb ak mm. la. bu tey neexee mm-hmm. démb tax. kon dañoo war di fàttali démb. Mm-hmm. mooy tax suñ tey mën a neex. dëgg la suñu ëllëg yi dana ci am solo bu baax a baax. dañoo riit man ñi dañoo riit. Mm-hmm. fi mu ne jamono jamono doy waar te ubbiku rek. Mhm. fu ne nga dégg fa waaye di telli tellee ka rajax rajaxee ka wax. Mhm. waaye wallaahi wallaahi Sëñ Tuubaa waxoon na ko nee na mujj jamono doo gis mukk doom ju gën baayam. Mhm. ñun ñooy gën suñuy doom. te ñun suñuy bàyyi yu gën fuuf. te suñuy bàyyi seen i bàyyi leen gën fuuf. kon nañ xam ne ñun li ñu am. li ñu yàlla jox muy mag ñu riis ñu yàlla jox. waaye mag ñu am gis-gis yi ñu yàlla jox. ah soxna si. bu ñu royee ci ñoom fàttaliku seeni jëf suñu boroom danañu suturaal ba liñ bëgg danañ ko am. te teel ñu fi bàyyi. ci misaal rek soxna si jumaay Touba ji nga xam ne moom lañ doon waxtaanee. Mm-hmm. un million huit cent heures ko liggéey. Mm-hmm. te ko doon liggéey mosuñu leen a fay ñaar dërëm soxna si. jumaay moom ay ca ndigal rek lañ ko daan def takk rajo bi. Mm-hmm. woote ku dikk ku mën a yenu xeer yenu xeer ku mën a joxe ciment joxe ciment ku mën a joxe ndox joxe ndox. un million huit cent heures lañ ko liggéey. te fayu ñu leen ñaar dërëm ñi liggéey benn dërëm bu ñu leen fay amul. Mhm. seen coobare lañ ko defee ak bëgg ak seen yéene te wàññiwu leen dara nag. jërëjëf Mbacke loolu day waree ne. Mhm. bu tey neexee démb a tax. dëgg la ñun jumaa ji julli rek a ñu ci war. Mhm. kon yàlla ñu yàlla fayal mag ñi. amiin amiin ñu ngi lay sant bu baax a baax. jërëjëf Mbacke bu baax ci waxtaan wi. bu baax a baax a baax ci. ak yaakaar yi ba tax nga di ñu nga ànd ak ñun ci bu baax a baax jërëjëf Mbacke xam-xam bi leer na macha allah waaye yàgg nañ ko la ñu ngi rafetlu bu baax a a baax liggéey bi jërëjëf ñu ñaan sunu borom doole ñu sutura te suñu kër gii ñuy a a eh, kon mbokk seen émission démb ak la woon ci Rewmi FM ñu mun ngeen ko teewluwaat ci Rewmi officiel mooy suñu chaîne ci YouTube Fatou Thiam Ngom la woon ci kaddu gi ànd ak jaaw jàllo ci jàppandal gi ñu dig leen daje dimanche incha allah waxtaane leneen ak keneen jërë ngeen jëf jërëjëf Mbacke jërëjëf